la mbokk yi dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi di nuyu bu baax grand sëriñ de dakaar alaaji Pape Ibrahima Diagne dafa di ab dëkk boo ciy dugg dangay jaar ca bunt ba kër boo ciy dugg doo jaar ci palanteer doo tëb ay sàkket da ngay jaar ci bunt bi te buntu ndakaaru mi ngi nii di Pape Ibrahima Diagne di grand sëriñ de Dakar chef supérieur collectivité lébu ànd ak ñi nga xamante ne nii démb ñoo nekkoon gouvernement bu Cap-Vert ndaxte fii dafa amoon gouvernement gouvernement boobu nag moom la cosaan wéyal ba tey jii mu toog ci tànk yi nga xam ne ay maamam fi toogoon ak baayam bu baax ba alaaji Basiru Jaañ li waral ñu ne booy dugg ci dëkk da ngay jaar ci bunt ba ki la gane si yow ak sa gouvernement ki la gane si mooy Maxtaar Seen Maxtaar Seen ñu gën koo xam ci rok mbalax muy doomi Ndakaaru di doomi pénc yi fekk fi ay maamam baayam ay magam mu ànd ak ki mbokkam te jubóog ki mbokkam ndaxte dëgg dara gënta neexit jubóog say mbokk ànd ak say mbokk ki la gane si tey loolu la def juboo na ki mbokkam ànd na ki mbokkam ñëw fi nag ngir ab dëkk boo ciy dugg nga jaar ci bunt ba dafa am loo xamante ni da koo bëgg a sos te loolu mu bëgg sos mbiru ndakaaru la mbiru ndakaaru la ndaxte ci ngoneem dafa di sportif bu mag nekk ci làmb ji am lu mu def ci làmb ji di sportif senegal jël ko jël drapeau du Sénégal jox ko joŋanteeg ndaw yi Afrique mu dem ca di championnat d'Afrique de lutte mu def lutte olympique def gréco-romaine def lépp loo xam ne ci wàllu bëri wàllu sport Matar seen jaar na ci jóge fi ñu yóbbu ko France ba mu demee France mat doon mat lool la nga xam ne moo taxoon senegal jël ko fi yóbbu dem na Jeux olympiques Athènes yàgg na gagné ay médailles médaille yooyu mu gañe ak xarañ googu nga xamante ni moom la xarañ ci wàll wi nga xam ne moom la doon yëngu moo waral ma taar ni ah léegi nag jot na li ma yàlla man loo ma bañ koo téyel sama bopp man dong waaye ma jël ko partagé ko bokk ànd ceeg ñi nga xamante ne ni ñooy samay mbokk ñooy samay xarit moo tax mu indi ñi nga xamante ni moom ak ñoom ñoo bokkoon écurie kay rey ngi ñuy toog Balla Juuf a ngi ñuy toog indi magam du mu bokkal ndey ak baay indi ay xaritam ay kóllëreem indi ñi nga xamante ni bu daan bëri it ñoog moo may ànd bàyyiwul kenn ci ginnaawam ci ñi mu daan àndal ay xaritam ay kóllëreem ndaxte booy dem ci gor booy dem ci koo xamante ni nii mooy borom dëkk booy dem ci moom looy dem dafay mat sëkk. nu euh, ñu ngi nuyu euh, le grand sëriñ la dakaar chef suprême de la collectivité ak euh, mboolem ñi nga xam ne ñooy ay collaborateurs am. muy jaraaf yeeg ndey jur yeeg ñëpp ñëpp ñëpp kurum rek da ngay juum bu nuyoo ñooñu aussi ñu ngi nuyu aussi euh, délégation bi nga xam ne moom la Matar seen àndal vraiment ñëw pour pour pour dajeeg tey la Serigne de Dakar mu doon nag ay tànku jàmm ak ay tànku ndam parce que loo xam ne ci àdduna bu ko xale mosul def ba def ko loolu dañ ko ciy félicité parce que ñun yàgg lañu ci làmb ji man moom a ci fekk mais gis naa ci moom ay qualité yoo xam ne yu extraordinaire mu muy muy bëri moom laa mos a gis si mbër koo xam ne kenn mosu ko daan ba toog ci kaam loolu tey jii ay télé daf fi nekk journaliste yi nekk mais ci taarixu làmba moom laa mos a gis si mbër te ku ñu ngi fi loo fi wax tey bu ko bu ko internet bi génnee di nga xam ne kon dina doon ay contre vérité moom laa gis si làmbam mos nañ ko jekku nag saa ne mais kenn mosu ko daaneel ba toog ci kawam kon loolu histoire la kon loolu lu ñu yàlla saluer la donc yàlla mu def ba ay jamono mu am bourse dem France di di góorgóorlu di góorgóorlu ba dem na ba doon neuvième mondial xam nga bu ñuy wax nit neuvième mondial kooku kooku raay bu mag a la. lu toll ne àdduna yëpp nga dem ba doon si classement neuvième kooku yaafus mënu ko ku fonkul li ngay liggéey mënu ko. il a été aussi champion d' Afrique à maintes reprises de France tu as vu kon kooku bu demee ba si yàgg àdduna di dox di dox ba mu jékki-jékki ne damay créer mille deux cent euh, am naa am naa yàlla may na ma que si sama xam-xam dinaa fexe ba créer mille prises. waxuma ne xam 1200 mais 100 prises rek pour un sportif créé ko loolu lu am lu lu yéemale ci àdduna parce que ci taarixu làmb olof yi ñu lu ñu xamoon caxabal galgal nooju dóor tànk mboot sukkër bi loolu boo ko calculé matul quinze prises bu ñu waxantee dëgg mais kii ci taarixam euh, maanaam ci xam-xam mu dem ba créé 1200 prises euh, euh, grand sëriñ loolu du lu yomb bi ñuy waxtaanee comme ni ko âge bakaay mu ne man de bés bi grand sëriñ laa ko bugg a tudde ñun ñëpp ñu rafetlu ko Balla ju rafetlu ko xam euh, ñoom inspecteur ak ñi nga xam ne vraiment euh, peut-être mënu ma seen tur ñëpp rafetlu ko kon grand sëriñ bés boobu bés bu mag a mag la si làmb bës boobu maanaam àdduna la Sénégal la fees sax la war a doon parce que tey bu fekkoon ne tey ñun ñi nga xam euh, ñun africain wala ñun Sénégal ñun ñoo rek ñoo ko reconnaître kon day euh, kon mun nañ sax bu ëllëgee ñu sànni ci xeer Sénégal euh, àdduna gis nga ni ñu dem tubaab bi si boppam ñoo nangu loolu que ne kii li mu li mu li mu li mu créé dëgg la daal di ko validé te xam nga tubaab bu dee ba ba nangul nit ku ñuul kon li li nga woon am na solo donc ñu ànd ak moom nag di waajal le 23 décembre incha allah comme ni ñu ko waxee jël bés bi yëpp nag teg ko sa loxo ñun ay magam lañu lépp luñ si mën suñu côté dinañ ko jàppale xam ne daal doomu réew mi doomu ndakaaru nag parce que mënoon naa dëkk feneen kat mais ndakaaru gii la juddoo fi la yaroo fi la màggee te ndakaaru comme ni ko Bécaye waxee nit mënu fi jaar te du jaar ci bunt yi te yow yaay buntu ndakaaru yow yaay buntu ndakaaru ndakaaru lu fi waay bëgg bu jaalu sew du sotti kon di ñaan yàlla vraiment yal yàlla ëggal yéene yi li ñu sumb yàlla defal ñu si ndam si barki yonent bi allahumma salli ala sayyidina Muhammad min seytaani rajim bismillahi rahmaani ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa yéen mbokk yi fi teew yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen baalu àq di leen wax dal leen ak jàmm ndax fii ngeen ñëw seen kër la yéen ñëpp war ngeen a am pas-pasu ñëw fi dugg fi tëdd fi lekk fi naan fi dem te atta sax duñu gisee ndax loolu mooy cër bi nga xamante ne bi mooy baatu Sëriñ Dakar moo war a uuf ñëpp yaatal ñëpp wallu ñëpp taxawu ñëpp dimbali ñépp ci kemtalaay kàttanam fat gan yi di leen xettali ak di leen taxaw kon bu ngeen ñëwee fii seen kër ngeen ñëw ma kontaan ci nag ci dalal bi ni ñu ko limee kilifa yu bari ñu ngi fi teew comme lim nañ leen ba pare jarul may delluwaat ci seen tur sant leen ci seen teewaay am na ci ñoo xam ne sax ñoo leen jéggal ni bu ñu ñëw li nga xam ne nag mooy yitte ji mooy doomi ndakaaru bu baax bu am jom ñu koy wax Matar Sène gën a siiwe ci turu Rock Mbalax di bërekat yàlla defit mu sopp métier def ci kemtalaay kàttanam ba guléet ci àdduna tey ñu ne am na bërekat ci senegal bu am pas-pasu génne ab téere def ci taarix walla ci xam-xam boo xamante ni bii dana jéggi senegal dugg ci neen réew nekk ndono ba ilaa yawmil bachar pour képp koo xam ne am nga xam-xam baa nga bëgg yokkute ci xam-xam baa nga bëgg leerlu sa xam-xam boo yëree téere boobu gis ci xam-xam ndax tey bërekat dafa nekk loo xamante ne bi ci réew mi ci métier yi gën a ëpp lu muy génne koom-koomu alal ci la bokk kon tey loolu lu rëy la ci réew mi du si ndakaaru dong mais lu rëy la ci réew ndax tey boo duggee réewum senegal ci région yi ko formé yëpp daanaka foo dem rek am na mbër mu fa soqi ko kon su amee kenn koo xam ne ndakaaru la fekk baax ci penc mu ñuy wax cëriñ di doomi ndakaaru liggéey ci xam-xam bu ñu war a mën a jariñoo tey ba bitim réew nungul ko ko nungu xam-xam bi valider ko mu ni dafay ñëw senegal pour tasaare ko te dëkk ndakaaru ay la yéwén loolu ñun ñëpp la ko defal kon nag daanu ko bokk ak yow ndax yaa ñu yéene ñu bokk ci ndax yaa tëju namm sam xel bind li nga war a bind saytu ko di ko topp ba boroomi xam-xam ànd ceeg yow nungul la ko ni 1200 prises yii kat validé nañ ko sur le plan mondial ni lii kat ci xam-xamu bari la bokk kon lu rëy la ni nga def it noonu nga toll ndax as gor ginnaaw diineem day nungu kilifteef kilifteef gii nga nungu bett ñu ci yow ndax ñun du ñu réeroo lu ñuy waxtaan xam nga ko fu ñu jëm nga ànd ak ñun kon ci ñun nga bokk kon boo amee bis ñun ñii ñoo la war a uuf baa nu boot la roganti la taxawu la ci bis boobu te daanu ko def ndax ñaar la sagub ndakaaru nga ba noppi nekk sagu àdduna ndax bërikat kat bi àdduna sosoo ba léegi bariwul ci Sénégal ku mës a xalaat ni man kat bëre am na xam-xam boo xam ne mën naa ko bind nit ñi jariñoo ko baa ñuy war a ñëw ëllëg jariñoo ko gu ci yaw kon nu nga lay sant di la gërëm ci pas-pas boobule yàlla na yàlla barkeel loolu nga bind nag loolu nga defit ba nga ko defee ba noppi moomatoo ko réew mee ko moom ginnaaw réew mi képp ku yër téere boobu rek tey moo la ci ëpp droit ndax ma koy yër di ko jëfandikoo te dootoo ci man dara kon loolu ak laa biir la liñ ciy jàngat mooy bëri bi ci réew mi taxawaay bi damay déglu bekkaay mii talaata bu nekk bu waxtaan jotee rek ma taal sama télévision ndax bëri man munuma koo fay ci sama biir bopp ndax su ma bàyyi alaaji Basiru Diagne Maram Diop promoteur la woon moo jëkk a fay mbër un million ci làmbu senegal kon bu àdduna doxee te bu jëkk nit ñi defoon ni bëree da ngay bëre rek ñibbi tey àdduna di dox ba nit ñi di bëre ci bëre bi ñu ci yor ay centaine de millions ci bëre bi am ay écrivain ak ay boroom xam-xam yoo xam ne dañ tàggu nañu tàggat seen bopp ci xam-xam ba bind kon kët loolu sag la ci réew mi waaye sag la ci yéen ñi nga xam ne nag yéen a ŋànk làmb ji ma ci sargal Aliou muy président CNG ndax sagama yëfama kii il est licencié licence am CNG la kon bu CNG dundee ba am ku mel nii CNG moo moom mbir mi promoteur yi ñoo la ñoo moom xew-xew bi mbër yi nga xam ne yéen a bokk jamono ak ñi nga xam ne ñoo la féete suuf ak féete la kawit ñoom moom bis bi ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk làmb te làmb sooke muy la presse sénégalaise bi nga xamante ni bii ñoom ñëpp làmb tey daf ci am ay spécialiste ma di leen topp ñoom ñëpp ci sur le sur le sur la presse écrite ak presse visuelle ñoom ñëpp maa ngi leen di déglu kon tey yéen am ngeen lu rëy ci réew mi na ngeen ko jàppale jàppale bi mooy fexe ba xam-xam bii àdduna yépp xam ni xam-xam bu sell la ndax kat tey am na ay professeur d'éducation physique ci àdduna yoo xam ne bind nañu ay téere kon tey kii bu bindee téere ñun dañu ko war a rafetlu sant ci yàlla ñaan tamit la direction du livre ñu recevoir la ndax loolu téere la wax le ministre de la culture mu jokkoo ak yow ñaan le ministre de la jeunesse sport mu taxawu la ndax lii luy jag la lu rafet la tey mbërum làmb bind na 1200 prises di téere kon loolu sag la ci ñun ñëpp ñun ñii nag nga bàyyile bis bi soo ñu ko bàyyilee ñoo ko moom boo ñu ko bàyyilee wulit ñoo ko moom ndax fii nga koy defee ndokk nag bi nga ñu ko bàyyilee. ñu la ci sant dina la gërëm yaag say bokk ak say xarit ndax mënoon nga koo diisoog say bokk ñun la déedéet mën nga koo diisoog say am di jaamu ñun la déedéet ndokk nag bi ngeen àndee yéen ñëpp nangu ni ñun kat noo fi fekk baax noo fi fekk baax nag nanu ko nungu ñun nag nitu aada la nu te nungu nanu ko ñun su sunu aada dégg naa sax léegi sëriñ su bari naan aada ji nañ ko teg fee aada ji nañ ko teg teguñu ko fenn ñoo téye suñu aada diine bi mu ñëw ci aada la du fekk ñu jël rafet lépp nag ci aada ànd koog diine